monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu bu baax di la féliciter ci sa liggéey euh, bëggoon nag àddu par rapport à la dette monsieur le ministre dañu gis ne utilisation de la dette sénégalaise est inefficiente parce que euh, dañu gis ne dañ koy utiliser sur des sur des secteurs de prestige comme le sport alors que dañ ko waroon utiliser ci secteurs yi nga xam ne ni ñoom ñooy agriculture élevage ak pêche wala industrie ndax loolu moo doon war a tax mu impacter ci la vie des sénégalais ne population bi dañu continuer di fay dette boobu noonu alors que amul impact dëgg dëgg dëgg ci seen dund surtout ñun ñi nga xam ne ñun ñooy waa àll ba monsieur le ministre ñu gis ne ci PAP 2A bi da jox li nga xam ne nii moom mooy santé 4 pour cent 5 euh, pour la sécurité 5 pour cent pour éducation et formation professionnelle et 7 pour cent li nga xam ne ni moom mooy agriculture alors que loolu nekk loo xam ne lu néew la par rapport ak li nga xam ne moom ngeen jox infrastructure muy 33 pour cent et autre ngeen jox ko 24 pour cent au total mu nekk pour cent boo xam ne ni sénégalais lambda bi yëgu ko ki dëkk ci kër jéeri amul ndox yëgu ko ki dëkk saare gati amul ndox yëgu ko ki dëkk Thiawane wala Kawil bëgg marché gisu ko donc impact wu ci seen dund monsieur le ministre c'est sur un besoin de financement boo xam ne nii 14 000 milliards 772 millions de francs CFA donc ñu gis ne lii moo waraloon le président Ousmane ko doon wax ne seen modèle de développement baaxul ndaxte dafay favoriser ki nga xam ne moom mooy la riche au détriment du pauvre parce que pauvre bi moom mi nga xam ne ni moom moo dëkk bi la terre wala li nga xam ne mooy berte yëgu ko moom da nga koy da nga koy encouragé si li nga xam ne moom mooy mbay li nga xam ne ni moom mooy industrie ngir mu mun si gis boppam ngir mu mun a produire loo xam ne ni économie boo xam ne nii dafay rester fi nga xam ne ni moom mooy si si dëkk bi pare impact sur la vie des sénégalais donc monsieur le ministre loolu moo waral may ne. bientôt. Le candidat de la rupture, le candidat du changement, c'est le président Ousmane Sonko. Continuez à parrainer à parrainer ki nga xam ne ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye moom mooy candidat bi nga xam ne ni li nga xam ne moo fi métti incha allahu rabi dina changé bu soobee yàlla ak bi ndax nag ñëpp xam nañ ne solution pour le Sénégal un changement la rupture métti ci yaram yi nga xam ne ni moom moo métti réew ndax nag Sénégal yi yaramu mag la day métti foo lamb day métti te métti boobu le moo am moo am li nga xam ne ni moom mooy solution. on continue le combat incha allah rabbi te pour trois mois Sonko dina ñëw nekk le cinquième président de la république du Sénégal changer le Sénégal ñëpp gis seen bopp asalaamaaleykum wa rahmatullah